bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julli di noo ngi leen di nuyu bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jaarale nuyoo boobu sëñ Cheikh baaralaat ak sëñ Cheikh Baara Matilay ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw ñu jottuli nu nuyoo boobu sëñ Amadou Maxtaar mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride nu di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla wéral ko te kàttanal ko te tawfiixal ko ba li mu yéene liggéeyal lislaam yéene koo liggéeyal xaadimu rasuul waaye yéene koo liggéey ci dëkkam bu tedd bii mu def ko ba mu mat te bañ a benn gàllankoor sëñ Sidi Muxtaar mënuñu koo ñàkk sant ndax bu ñu màggalee fii yàlla ak moom la bi màggal gi jublu si te nu waxtaan ak sëriñ mustafaa moom Seex Masàmba Mbàkke daf noo wax ne dem leen seeti sëñ Sidi Muxtaar ma ànd ak ñenn ci njaboot gi dem seeti ko ban demee wax ko ne ko te noo sëriñ bi day def noo jox ndigal lu màggale ci daaru karim gii nga xam ne moom na lañ sentoon bu yàggut te dara nag amu fa aw yoon amu fa courant amu fa ndox am na fa tuuti waaye bariwul nu bëgg nag yooyu nga joxe ci ndigal ba niñ ko bëggee ñu amee ko noonu muy mbirum saayir wala moom baatin mu mën a doon mu ne baax na dégg naa ko kàddu gu gàtt nu daal di tàllal suñu loxo mu ñaanal nu ca suba sa xawma gannaaw suba sa cheikh basiru abdou xaadir jot ma ne ma dana am ku ñuy wax njaay nekk aseru de Thiès dana la woo bu la woowee nga ànd ak moom ngeen seet la ngeen fa bëgg ak na ngeen ko bëggee ci godron ñu def ko fa ca suba njaay mu woo ma ma ànd ak ñenn ci njaboot gi won ko fi nu bëgg mu tàmbalee fa ba fa mu yem waax ko lan ca bëgg lépp itam mu natt ko def ko dëwi yóbbu ko ñu wéyal ko ca saasa bu fekkoon du màggal gi dafa jege kon dañ koy godoone ci saasi waaye bu weesoon insha allahu du yàgg ñu godoone ko ci lu wér yoo xam ne ci sëñ Sidi Muxtaar la jóge ndigalam waa ASER di ko def siir waay yi koy def natt nañ ko ñoom lañ àndal ba ñu natt ko ba xam li muy doon xam kañ lañ koy def naka noonu kuraa bi fa tabarakallahu moom it ma am benn bis Seex Baas jot ma ne ma waa Senelec danañ la woo bu subaa ndax kuraa boobu ngeen doon wax ñu def ko te suba sa ñu woonu ànd ñëw fii natt ko ba mu agsi fii wër ko lépp ba mu def ñaari kilomètre ci biir dëkk bi nga xam ne fu nekk dana fa dem loola moom it fa tabarakallahu ñoom ñu defar dossier ba ba war koo jébbule waaye Cheikh Bass génn waaye loola wóor na lu àgg ba noppi la ndax bëgg-bëggu sëñ Sidi Moxtaar day am ci saasa incha allahu te lu mu joxe ndigal lool la ñuy def fekk na Aly Ngouille Ndiaye mii nekk ci kaw bi mu nekk ministre de de ñu wax ko ko mu ne day bu soobee yàlla danaa yóbbu courant foofee te def ko na mu ware yàlla dogal yàggul dara ni nguur baaxoo def ñu soppi poste bi mu ne yóbbu ko beneen mu nekk ci miin waaye la mu wax mooy lool li mu wax mooy la ma waxoon bu soobee yàlla naa ko def mu wax waa Senelec ñu mu natt ñu mu nattuloo ñu natt diggante ba mu àgg ba xam ne mu deme defar dawi ba ba muy ay millions yu bari waaye moom it la ci yàlla dogal ministre may ko yoroon yàlla dogal mu bàyyi beneen ministre yor ko mbaa premier ministre yor ko waaye teewul njël dossier ba jox ko premier ministre ma ko yor ba bii nuy bëgg a màggal lañ ko signé mu wóor ne loolu danañ ko def ACR ñoo koy def te du yàgg dara ñu def ko muy jëf fi say Sidi Muxtaar ji rek kon mel na ci misaal ne fii lu fi nekk sëñ Sidi Muxtaar la te liñ fi bëgg lu bari la du lu tuuti ndax suuf si tuutiwul parcelles yi fi nekk tuutiwul jege na juróomi junniy parcelle xëy na ndox amagu fi moom it te fii jegewul noonu forage ndoxit lu nuy bëgg lay doon waaye bi suñu xel dalee nag fa tabarakallahu la jàpp màggal si fi ci ndigalu sunu kilifa sunu sëriñ di cheikh Moustapha Mbacke moom cheikh Massamba mu am ci dogu lool am ci pësteef lool bi nu ci doxee ba nga xam ne yàgg na mu am benn bis mu ne danaa ñëw sanc si fa tey ci fan yi ci gannaaw ñoo am fi ñaari fan mu wóor nu ne lam fi doon ñaan suñ boroom nangu na ko ndax màggal gi dara luñ ci mas def lu jafe amul lépp dafa yomb te lépp def noo bett lool loolu mooy baatin bi saayir si nag mooy bi ñu defee CRD ci gouverneur Moustapha Ndaw mbooleem luñ fa diggee woon luñ fa digle woon sàkk woon ko ci ñoom fa tabarakallahu ya ca ëpp def nañ ko yeneen ya des xëy na day loo xam ne sanc bi fii lépp àll du dara moom moo tee loola amul waaye kon lépp day mat cent pour cent ndax pësteef biñ ci am ak yitte jiñ ci am moom ak préfet ak sous-préfet kenn mën koo weesu waxtu wu ne lu dara amee jafe-jafe ñu woonu xool luñ koy mën a régler nuñ koy mën a defare kon fa tabarakallahu ñoom it ñu ngi leen sant bu baax lee mooy baatin ba lii mooy shaahir si béréb bi nag wax nañ ko ba tàyyi dañoo wutal sëriñ Masamba am pénc ndax wóor na leen ne fiñ ñu daa màggalee ay mbedd rekk la woon te looloon la ko waral mooy jege gu mu jege woon jumaa ji moom ak sëñ Fallu moom ak sëñ Modou Moustapha kii féete gànnaar kii féete sowu ki des féete penku ñu sës rëkk ci jumaa ji ku sës ci péncum jumaa ji nag doo mën a am menatum meneen pénc loolu moo tax mën nu ba am permis waaye loolu nag naqariwunu ndax ba sëriñ Tuubaa di yable ñoom ñett ñooñu mu yabal leen fi ñoom ñett la fi yabalandoo li ñu dande woon jumaa ji ñoo ko yemle woon daanaka sorewuñ ko kon fa tabaarakallaahu ku jegee noonu sa war naa sedd walis ngay bëggum penc mbaa ngay bëgg leneen ndax ku sañoon ku nekk jegee noonu jumaa ji ku sañoon ku ne am ndigalu sëriñ Tuubaa doog fee ñëw ku sañoon ku nekk la nga xam ne moom lañuy ñuy dabu ci tuubaa nga am ko te ñoom de amoon nañ ko mu tegal leen ci li Bassirou wax léegi na ngeen daan dëkk bi loo xam ne julli jumaa bu ngeen koo def daan leen jàpp ngeen ñëw fii sëñ Fallou dem Dindi sëñ Modou Moustapha dem Tindóodi ma sàmba dem daaru karim mooy daaru karim gii la mu leen wax mooy liggéey de dafa mënta ñàkk te as góor bu bëggee tedd day nangoo liggéey bu bëggee am ngërëmul yàlla day nangoo jaamu yàlla kon na ngeen jàpp loolu te jëfe ko niñ ko waxee nag sëriñ ma sàmba moom bu ko sëriñ bi yónnee bu ko sëriñ bi def loo dara ca lool rek la yittewoo teguñ ca ab diir mu woowaat ko moom mu dellusiwaat ci moom la muy tegtale mooy mësula bëgg dara lul sëriñ bi mësula am seen soxla ci lul sëriñ Tuubaa rek lu mu ko defloo ca lool la ne du def nag lu mu koy tere loolu dama bàyyi histoire ba ca suuf ndax Basiiru wax na ko waaye fa tabaarakallaahu wàll gune feet na ko fi sëriñ bi ay weer yoo xam ne liggéeyu toog taxaw lay def di laxasaayu di liggéey ni ñëpp yi liggéey ay weer yoo xam ne liggéeyu tool lay toog lay def bu jógee taxaw day dem ci yitte wala lu la mel kon léppam sëriñ Tuubaa rekk la woon kooku mooy Cheikh sàmba di rakkam di taalibeem waaye mu di wayjuram itam ndax wayjur lu ko wayjur war a defal rekk sëñ Tuubaa ko def bi mu gane àdduna way juróom nekku fi génn na fi ba juróomi weer wala juróom benn weer sëñ Tuubaa ko tudd sëñ Tuubaa ko jàngal moo ko wax bismillahi rahmaani rahim teg ko ci tànkam mu jàng mu doo ko yóbbu jox ko sëñ Daam Abdurahmaan moo kale fa ni ko waxee léegi àggale liggéey ba ci sëñ maam Ibrahima Ceerno Ceerno eh, Ibra Faati jàngi xam-xam ci mbooleem ñi fi ëpp xam-xam nag ba jël ja ngecc la amoon lépp ndax ump leen ne li mu doon liggéeyal sëriñ bi ku amul xam-xam mënoo koo def kon moom yàlla dogal na moo amoon xam-xam bu doy waaye sëriñ bi wóolu ko ndax pësteefam sëriñ bi wóolu ko ndax ba xam li nekk ci Masamba loolu mooy li tax sëriñ bi liggéeyloo woon ko li mu ko doon liggéeyloo ba mu àgg fi mu àgg ba am lii mu am fa tabarakallahu defe naa histoire sëriñ ma Masamba deesutu ko waxati léegi kenn ku ne xam na ko ku ne ma na koo nettali te li ñu ci nett lépp moo wér te mooy dëgg ndax ay bayit ferindeel na ko yu jóge sëñ Fallou ay bayit firndeel na ko yu jóge ci yu jóge ci sëñ sëñ Mat Lamin sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ay bayit firndeel na ko yu jóge ci mboolam ulama yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jooju jamono te xam sëriñ Masamba xam taxawaayam xam doxinam baa ñu jàngal ko sax fa tabarakallahu kooku nag mooy way juru suñu kilifa yii fi nekk sëriñ Moustapha Massamba di kuutaayam ci kaw suuf am taxawaay bu rafet am yéene ju rafet am pasteef bu mat yërëm njabootam te fonk leen te bëgg leen di leen teral waxtu wu ne ci alalam di leen teral waxtu wu ne ci ci di leen bégal kon fa tabaarakallaahu yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla wéral ko yàlla kàttanal ko yàlla tawféexal ko ba li mu yenee liggéeyal sëriñ ma sàmba mu liggéey ko ba mu mat te dara bañ cee manqué moom ak jawrinam sëriñ Maamoor Mbàkke ak sëriñ Abdou Xabiir ñooy ñi nga xam ne ñoo fi des yeboo sëriñ Masamba yàlla nañ fi yàgg lool lool lool ba liñ bëgg a liggéeyal Seex Masàmba ñu def ko ba mat béréb bi nag fa tabaarakallaahu ku fi ñëw ku ne am na ku ko wax léegi dana la wóore béréb la boo xam ne bii béréb bu baax la bu am yaakaar la yaakaar jooju yàlla ba mu tas li ñu fi yéene lépp yàlla na ko suñu boroom def ci darajay lislaam ci loolu nuy sant ñi nga xam ne yàlla dogal na fa tabarakallahu bés bii lu ci bari jaar ci seen loxo ku mel ne ma dikke ñang taxawaayam rafet na ci lool ni mu ko baaxoo defee at mu ne mu def ko ren nag moom dafa daanu lim ci def moo ëpp fuuf la mu daa def te kenn du du wone sax ne def naa dara kenn du xam ne def na ko ku ko waxut doo ko xam te loolu dara waralu ko lu gëm sëriñ Touba gëm Seex sàmba te bëgg ko bëggin bu wér na ko juróom bu bëggee woon yàlla na ko yàlla fayal ma dikkee duñu ko mën a ñàkk ñaanal yàlla defal ko sutura defal ko tawféex dolli ko sax laay wax ne am na ko ba noppi yal na ko yàlla taxawu te dimbale ko kenn ku ne bëggoon nga am taalib bu mel ne moom te moom kat dëgg la kër sëñ Massamba la am waaye sëriñ sépp la am yoonu murid yi bépp la am amul frontière fenn kër gu ne mën na faa dugg kër gu ne ma ngi fay def teraanga kër gu ne mu ngi bokk ak ñoom yitte yi di bokk ak ñoom soxla yi loolu mooy taalibe bi gën a baax ndax mbooleem ñi sëriñ Tuubaa defar ba mboolem ñi sëriñ Touba jur seeni njaboot nekk fi lépp loo leen defal sëriñ Touba nga ko defal te sëriñ Moustapha mii sëriñam day loolu da ko neex waaye naqariwu kon ma dikke yaa ngi ci yoon wi doxal insha allahu da nga daje ak ngërëmul sëriñ Touba da nga daje ak ngërëmul Seex sàmba te mooy li ëpp solo moom la taalib bu nekkee sàkku ñett jàpp ci bés bokk na ci Pape Mayel am ci taalibe goo loo xam ne bariwul ñu ko am cër bi mu am ak ni mu toll bu gisoon kenn ku ñëw léegi rek am na kuy ñëw dafa wàcc toog ci suuf bàyyi jox ko Xaadim Diop mii ministre ne ma day ku mel ni moom ci taalibe de man gisuma ko fenn te lu ma seq ak moom ci laa ko xamee te kilifa la nag bokk na ci ñi fi jëf lu bari sëriñ Mbay Saar Sénégal Tour moom it at mu ne mu def ko jëf ju sell ju pëstéefu ju mu def ci yéene ak ak ak man-man yàlla da ko binde muy koo xam ne du roy kenn du jéem a toppandoo kenn day seet la mu man mu di ko def te la muy mane du tuuti fa tabaarakallaahu moom it ci jàmbaar yi la bokk yal na ko yàlla doole suturaal doole koo tawfiixal ba li mu yéenee lëggéeyal sëriñ Massamba yéene koo lëggéeyal sëriñ Touba mu am ko na mu ko bëggee te moom it fa tabaarakallaahu amul frontière ci kër yi kër gu ne lay dem ku xewle ma nga fa la ko ca waar ma ngi koy def lam ca man ma ngi koy def jërëjëf Mbaye ku ñuy wax Lamine Baara Jaañ di taalibu sëñ Maamoor moom it def na ci lu am solo ci bis bi ku ñu wax sëñ Modou Fall woy juróom di sëñ Daama Fall mii toog moom it def na ci bis bi lu am solo fa tabaarakallaahu te woy juróom noonu la daa def lu ma sa xew dana ci jàpp dana ca def lam war def ba mu mat sëkk njabootam géet bi ñu demee ba man wuutu nañ ko ca loola di ko ko defal yal na leen yàlla fay mbokk moo xam ne ku mën a def lu baax la te yàlla dimbale ko muy Basiiru Xaadim Awa Ba léegi la fi jóge moom it jàpp ne ci bés bi lu am solo ku ñuy wax Mamadou Ndiaye Boisari Xaadim Rasoul jàpp na ci bés bi Aly Ngouille Ndiaye mii ministre président yónni ko fi jàpp na moom it ci bés bi te lu mu baax wa di ko def la fa tabaarakallaahu ku taalibee la ku gëm sëriñ Tuubaa la ku baax la ku am pëseef la kon fa tabaarakallaa yal na ko yàlla fayal ñooñu ñooy ñi nga xam ne fa tabaarakallaahu jàpp nañu ci bis bi ba tax ñu ñeme ba tax ñu mën a dox ba tax lii nu bëggoon def ñu mën koo def ba mu mat sëkk te dara gàllankooru ko Abdoulaye Mbaye Peex wax na ko léegi fii nu toog ñoo ko def ñoom ñëpp sunu benn dërëm demu ci lépp ñoo ko def waaye loolu nag fa tabaarakallaahu du kiimaan ndax taalibeeb sëriñ tuuba lépp lu sëriñ bi soxla ñoo ko war a def ñoom de ñu ngi jàpp ñu ngi ñuy taxawu ñu ngi ñuy dimbale ñu ngi jàpp ci projet yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy def moo xam liggéeyu sëriñ Touba la bu mu nuy liggéeyloo mat na quatre cent millions ci daw yi ñu ngi ci liggéey boobu sori na lool ñoom ñëpp ku ne sa loxo ngi ci biir loolu mooy sunu diggante ak taalibe yi liggéey bii nag nekk fii ci Touba daru Karim benn taalibe defu ci dara defagu ci dara li ci dem lépp sët sëriñ ma sàmba ñoo ko def ñoo defar kër gi ñoo defar bâtiment yi ci biir ñoo fi def yépp yi fi nekk fa tabaarakallaahu te loolu dañu xam ne seen wayjur seen ñoo war a defar loolu seen maam ndax féete na leen foo xam ne fii kenn féetewu leen fa tumuranke wuñ dara doo gis mukk sëtub sëriñ ma sàmba wala doomi sëriñ ma Masamba joo xam ne fa tam kenn da koy yërëm bu dee taalibe am nañ ko bu dee am am am nañ ko bu dee xool def am nañ ko kon sët yooyu ñu ngi leen di gërëm bu baax noo ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax mooy fondation bii nga xam ne mooy sëtu Seex Masamba yi muy lu ñu sos loo xam ne bariwul fu mu am benn weer bu ne ñu mën a daje ñépp daje teew lu ma téeméeri nit nekk fa ñu bokk wax seeni soxla wax seeni yitte tasaaroo dem daje def seeni teg tegal bàyyi fa ku ne bëgg nga ko way yóbbu te kenn du werante ak moroom ma kenn ku ne jox na cër kam ko war a jox def na lam war a def kon sët yooyu duma man lu dul sant leen duma man lu dul gërëm leen kii ngay wax tudd naa ko ba noppi moo du Fall moom Alaaji Ndaama Fall wax naa ko ba noppi ñi ngi sant itam commune ni mu ko baaxoo defe defe na ko noonu mat na sëkk li mu mën ci bés bi jàpp na ci def na ci lim ci war a def ba mu mat sëkk dara manqué wu ci loolu mooy def na ko cent pour cent di waa Senelec seen taxawaay rafet na ndax li ñu war a def ñoom it def nañu ko fi la ñu nekk bërki dem bu ba tey mës jógewuñu fa kilifa yi ci seen bopp ñoo fi nekk di liggéey liggéey bi ba nu am résultat yi ñu am kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di leen xamal ne itam mbooleem seef de service yi amul benn ak service yépp amul benn boo xam ne lañ la waxoon jéemoo ca la nga man ba lu ko gàllankoor bërëb bi la waaye du ci yow kon loolu ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen ci sant bu baax loolu dama koy wax ba noppi ne leen bu ñu ko mënee def seeni kilifa tax tàmbale ca président la république premier ministre ministre de l'intérieur ak ministère yépp jàpp ci jox leen ci ndigal ba ñu mën koo def ñi ngi sant gendarmerie nationale ndax fii ñu koy defee dafa génn ci compétence police ay CMI ñoo fi daa ñëw waaye ren ñeent fukk ak lu topp ci ay élément wu gendarme ñoo fi ñëw nekk fi ba léegi di fi liggéey liggéey bu rafet te am fi taxawaay bu baax bunduxataaluñ kenn luñ kenn te aar nañu nit ñi ba lépp aaru la kon ñu ngi leen sant ñoom ñépp ci seen njiit commanda ñaa mboolem chef service yëpp noonu lañ def pompier Croix Rouge ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na ñi des mooy presse bi danaa ci ñëw incha allahu ci kanam nuy sant nag président de la république moom itam ci taxawaayam ndax bis bi du ñëw mukk bu ma ko ko yëgalee lay daal wax ne jot naa sa message noo ngi koy xool nuñ la tontoo nu mu gën a gaawee incha allah te noonu lañ koy defe tontu lépp di lu positif kon mënuñu koo ñàkk gërëm dana ci jàpp bu baax day jàpp ci bés bi bu baax di jàppale ñépp itam nag te jëf yi loolu mooy li ci gën ndax kër dafa am boroom kër am doomi boroom kër ami surga bu fekkee jëf ya ngay jëf nag danga koy jëf ca boroom kër ga képp bàyyi doomi boroom kër ya bàyyi surga ya boroom kër gi de dana la gërëm waaye ñoom duñ la ña ca des duñ la gërëm moom nag day def ci boroom kër bi def ci doomi borom kër bi def ci surgay borom kër gi kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci wàllu réew mi ñu ko joxit ku ci am pësteef la am na ci yéene bu baax fa tabaarakallaahu yal na yàlla mottali yéeneem ci daraja lislaam ci loolu lay wax ci liy jublu si ci mois de juillet muy ay joŋante ma bëgg cee sànni kàddu jële ci samay kilifa ñu am dal am sago teey te wóor ne nguur yàllaa koy joxe ku mu ko jox nga am ko ku mu ko joxut doo ko am kon loolu jarul reyante jarul xuloo jarul ŋaayoo jarul dara dal teey rekk la ndax nit ñi ngeen koy seqal ay nit lañu doonatu ñuy dof xam nañu bu baax ku def loo xam ne jar nañu ñu ñu ñu ñu ñu njukkal la ñu njukkal la ah? koo xam ne kii defoo ko wallaay te bari na ñu ñu xam lu ñu xam nag léegi kenn mënatu leen ndax dañoo yeewu lool xam lool xam li si war teef lool xam li seen carte di jar itam nag bu baax liggéey am bilaa daal moo am solo président Macky Sall nag du ne amul bilaa waaye niñ ko war a leerale moo des ñi mu àndal nañu leeral li mu def wax ju leer ju tege foo xam ne ñépp danañ ko gëm muy lu dëggu lii mooy li am solo opposition bi ñoom itam néewuma nekkuñ ci dëgg ndax lu ñu nekk seen gis-gis la te li ñu gis itam seen yee seen seen seen bopp la waaye yooyu yépp nag jarul xuloo jarul ŋaayoo jarul dara nañ ko def ci sago def ko ci dal def ko ci teey ba ki nga xam ne yàlla may na ko mu am loolu rekk mooy li googu wàll foofu laa ci yem suñ warteef nag nun njaboot sëriñ Touba ci dëkku Touba bii mooy teg fii nga xam ne fi la ko sëriñ Touba tegoon ñu teg ko foofee na mu doon doxee di ko digle ñu defe noonu lu suñ yoon nekkul buñ ca doon dara noonu gone yee tam wàññi wax yi wàññi jataay yi wàññi plateau yi nga xam ne moom la peex doon wax léegi lu am solo la ndax kat wax moom day def boo ca xasee dugg doo xam foo yem kon nañ ko wàññi ku ci nekk di wax la mu gëm te muy dëgg te mu mën koo contrôler mu wax ko loolu loolu mooy li am solo bu fekkente ne nag yooyu yépp mën naa ñàkk nga dem jaamu yàlla di liggéey nekk ca la nga war a def bu def sa dawaar jotee nga dem def ko ñëw debaat sab liggéey waaye loolu dara duñ ko def la ñuy jublu mooy naa coow ndax ma am dara naa coow ndax ma def li yooyu yëpp amul njariñ li am njariñ daal mooy ni sunu mag ña defoon te ñooy suñu référence suñu def noonu ni Cheikh Massamba mii ñuy wax defoon mësul lu bëggal kenn dara lu mu am bokk kook nit ñi noonu mooy ni mu daa doxe du bàyyil këram dara dépasse sax du ko bàyyil këram ci suba bu amoon ko soxla ñëw ci guddi mu war koo def dépasse la mu yoroon da ko koy jox waaye nag ku nekkal yàlla yàlla nekkal la yàlla na ko sañ na ko yàlla na ko def li ci des ma jëme ko ci taalibe seex Seex sàmba yépp di leen dégal ñu góorgóorlu am jom am fulla am fayda te fonk seen seen seeni kilifa waaye fonk procès seeni kilifa kër ma sàmba nag danga gis nu ñeneen ñi def duñu ko def loolu li ko waral lii la mooy seeni kilifa dañoo bari yërmaande lool duñu leen teg dara duñu leen laaj dara lu dul lu leen lislaam teg mbaa lu ñuy lëggeel yoon wi te loolu boo ko defee nit mas naa ne sëriñ Mahmoudan man de defe naa ne nii nuy doxe bu ñu ko nee doxe taalib yi danañ yaafus ndax lu ñu war a def nga def ko loo war a digle doo ko digle xanaa la la yàlla la yàlla la ñuy digle ci wàllu yàlla rek nga leen di digal waaye doo leen laaj dara doo leen teg dara loolu ku koy def koo àndal mën naa yaafus ndax loolu teg sa exemple bi mooy kër gi ñu def ko ba mu àgg benn taalibe doonu ci du ci taalibe yi ci noonu la liggéeyu sëriñ Tuubaa bee ñuy def mat 400 millions bariwul taalibe bu ca dugalagul dara te loolu li ko def ci noonu la waaye nag bëgg naa taalibe itam bu ñu déggatee benn projet bu mu mën a doon ñu jàpp ci di ci dox nañ ca war a doxe ku ne di ca def lam ca war a def exemple bi ma gis léegi am ñu ko def lu yomb la taalibe bu nu waxuma dara waaye su génne woon ñaari junneem képp joxe ko ñiy taalibe Seex sàmba dafa ay nangami téeméeri million lay doon projet bu ñu song mën koo mën koo daane te loolu lu yomba yomb la waaye nag nit ki loo xam ne lii yaruñu ko ca miinaluñ ko ko du ko xam du ko mën a jëfe waaye defe naa bëgg na aaj soxla nañu soppeekuwaat ci doxin soppeekuwaat ci pësteef soppeekuwaat ci liggéey yi ñu ko bokk ak yéen ngeen di ci jàpp di ci def la ngeen mën a def laa yukallifu laahu nafs illa wusaha waaye nag la nit ki man itam nag da koo war a def te doy na ci nga dégg ne sëriñ Touba sëñ Cheikh Mokhtar joxe na liggéey bu mat 400 millions nga sëgg rekk di xoole doo ca jàpp doo ca def dara loolu du lu war bu ñu ko déggat lu ñu déggate nañu jabayi lu ñu jàppoon lu mu ndawe ndawe kenn ku nekk sa kër nga xool ña fa nekk nga génneel leen seen àddiyee ñu def ko lii mooy lii tax projet yëpp mën a dox ni mu war a doxee àgg fi mu war a àgg te kër yu bari noonu lañuy ñuy doxee nu nag lii ma wax moo tax du ni doxe war nañ cee doole soppi ko bu baax nag kon daal lii mooy kàddu yi ma amoon maa ngi gërëm mboolem ñi jàpp ci bés bi presse bi ci bi ñu wootee léegi waxtaan wi lépp lu bàyyi nañ lu ñu jàppoon ñëw ànd ak nun dee bàyyi ànd ak ñun plateau yi ànd ak ñun communi communiqué yi ànd ak ñun lépp ba ñépp dégg ñépp xam loolu mënuñ cee ñàkk gërëm presse bi ndax ñoom ñoo am fu la ju toll noonu di ko def te buñ ko defutoon it kenn du ko yëg kon ñoom kenn mënu leen ñàkk sant kenn mënu leen ñàkk gërëm te waaw te kër sëñ ma sàmba màggalam gii bu ñëwee ñoom ñëpp dañuy sawar ñëw ci loolu nag xaw ma lu ko waral xaw ma Pastef la xaw ma sëñ ma Sàmba la xaw ma ñi nga xam ne ñooy organiser dañ ci dañ dañ dañ dañ dañ leen di teral waaye lu ci mën a doon daal lu baax lañu ñu def yàlla leen yàlla fay kooku jox na ma ay ñi fi ñëw yépp télé yi fi ñëw RTS la Touba TV DTV Lamp Fall TV Al ak istiqaama poyikoom ak yeneen yoo xam ne gis naa leen fi te bindu ko li may wax day mel ne daal télé yu baree bari ñëw nañ fi te kenn ku ci ne jëf nga la nga war a jëf ndax Lamp Fall FM rajo yi mu def rajo Lamp Fall Walfadjri rajo Daaru Muxti rajo Jant bi rajo RF RFM rajo ECAP rajo Touba Fall rajo Benno Assirou ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp leen sant ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla bés bi yàlla na ko suñu boroom delloosi leneen la ma ciy teg mooy nii ñu fi nekket ren kenn ku ne am coonay def fa loo fi mën a nekkee nan ci jëleel benn leçon boo xam ne balaa déwénee ñëwati kenn ku ne sa kër danga nga ko miir ba mu àgg loo mën a def ci biir nga def ko jox waaye delluwaat fa ñu nekkoon ren jii di fa tàmbaleewaat loolu du pësteef ci nun du fulla ci nun du fayda ci nun kenn ku ne la nga def ci sa kër ba mën faa màggale ren na nga fa def lu ko mottali sëkk ba mot màggal ga mën a mat sëkk dara bañ cee manqué te loolu am naa yaakaar ne ñëpp foofu lañuy nekk yàlla nu ci yàlla dimbale ba nekk foofu taalibe bi yéen ñépp ku ne joxoon nañ la fa kër kër googu na nga fexe ba defar ko ba boo fi màggal seete dem ci sa kër toog fa màggale fa lii daal bu ñu ko defee projet bii ñi nga xam ne moom lañ bëgg sëriñ Moustapha Massamba bëgg ko dinu ci jàppale dinu ci teete bu nu ko defee liñ ci bëgg danañ ko am yàlla na lu dégg dëppoo ak ngërëmam dëppoo ak ndigalam te am taw féexe man koo def wa ma salika àlalaay bi as wasalaamu aleykum wa rahma am na ñoo xam ne duma leen mën a ñàkk tudd mooy ñi ñu tudde woon bés bii muy waa kër sëriñ Fàllu Pastef bi ñu fi ñëwee ak mbooloo mi fi ñëw ak ñu qualité ñi fi ñëw ak coono bi ñu fi yàgg sonn ak li ñu fi daj loolu mën nañ leen a gërëm bu baax sant leen bu baax di leen xamal ne loolu nag du kéemaan ndax diggante sëñ Fallou sañ sëñ sàmba noon rek la mel noonu rek it la war a mel kon ne la leen yàlla fay ñu ngi sañ sañ Aboo Baraka bu baax a baax di gërëm ñépp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ngeen tàllal sëñ bi ñaan fu waaye toll na tàllal amiin amiin amiin amiin amiin